أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa bismillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël benn aaya muy aaya 43 benn aaya bi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala daf ñi ciy jàngal mbokk yi juróomi mbir bi ci njëkk mooy taqriiru mabda al nasx li ahkaami sharciya fi l quraani wa sunna bi ci njëkk ñu ngi bëgg a jàngal tey loolu ñu naan folli saxal bi nga xam ne principe bu sariya saxal na ko ci ay atte islaam yi ci alquran ak sunna léeg-léeg ab aaya alquran yàlla subhanahu wa taala ci coobareem toog ba mu soob ko mu mu dindi àtte bi mu bàyyi fi njàng mi njàng mi nekk ci téere bi ñi koy jàng waaye aaya bi kenn du ko àtte woo wala léeg-léeg sax ñu gis aaya bi nekk fi waaye ab xadis daal di ñëw daal di folli aaya bi wala ñu gis yenn saa yi xadis ab aaya ñëw daal di koy folli loolu bokk na ci li ñuy jàng tey ci njëlbeenu aaya yi nga xam ne moom moo nekk sunu kanam ñaareel mooy xurmatu muksu junub fi lmasjid wa jawaazu al ubur wal ittiyaaz bi duni muks dinañ jàng tey benn atte ci atte fiq mooy araam gi nga xam ne dina ko araam ku am janaaba muy sax ci jàkka muy dugg ci jàkka di ci toog ku am janaaba du dagan ci moom muy jàng alquran waaw ndax xadis ibnu maaja ak keneen ku dul moom laa yaqra junub wal xaaid cheyan min alquran wa hadha alhadis rawahu tabrani kaana rasulullahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam laa yufjibuhu an qiraati alqurani chey illa an yakuna junuban danañ jàng tey ci sunu dars mooy ku am janaaba du sax ci jàkk waaye ku am janaaba sax dafa warul jàng alquran ci xadiis ibnu maaja nañ yonent bi alayhi salaatu salaam lépp la laan def ci jamono yi nekk daana jàng alquran lu dul bu amee janaaba kon ku am janaaba du jàng alquran waxuma du jàng alquran waaye warul toog toog ci jàkk mën naa traversé jàkka ji nag waaye du fa sax du fa toog ndax ku am janaaba dañ ko tere mu dugg ci jàkk waaye dana dagan ci moom rek mu traversé ko waaye bu mu fa sax nag ñetteel mooy wujubul ghusl alal junub wa huwa man qaamat bihi janaaba bi anna ihtilaam fara al ma aw jamaa ahluhu fa awlaja zakruhu fi l farji imraatihi wa lam yanzil ma bokk na ci li ñuy jàngaat mooy ku am janaaba li war yow mooy nga sangu ko xam ngeen janaaba li ko indi mooy sëy wala gént mooy indi janaab ñaar yooyu nag bu la dalee li ñu sàkk ci yow daal balaa ngay def benn jaamu yàlla mooy nga laab nga sangu ci ki am janaaba mooy ki nga xam ne dafa gént mu gis ndox génn ci moom wala mu sëy ak soxnaam wala mu sëy ak jigéen mu gis ndox génn ci moom wala mu jël sàkkaraam mooy awraam sexam mu dugal ko ci awra soxnaam su boobaa bu ndox génnul sax dafa war a sangu ci foofu moom sangu dafa war donte ne ndox génnul yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na isaltaqa alxiitaanayni xat wajabal xuslu ñaari awra yi ñaari yu jong yi loolu tax boroom xam-xam yi wax jigéen dafa war a jong foofu la xadis yooyu lañ sukkandikoo bokk na ci ñiy wax jigéen dafa war a jong mooy xadis bi ñu sukkandiku mooy isaltaqa alxiitaanayni ñaari yu jong yi bu ñu laalantee bu góor ak bu jigéen bi yonente bi nee na ñaari yu jong yi bu ñu laalantee sangu war na même bu ndox wàccu sangu war na am na sax riwaaye bu ne góor ak jigéen seen ñaari tànk yi bu róofoontee ba ci óom yi comme ni ñuy toogee ci sipeer bi ci saal bi foofu ñu naan la jàll ci saal bi ngeen toog keppante ku fa keppante ak jigéen boo génnee dangaa war a boo wàccee dangaa war a sangu ji ñaari ñeent yi bu ñu laalantee róofoo rek sangu war nga loolu dafa grave te xoolal ñun ñu ngi koy def de ah toog keppante Dakar ba Géejawaay ngeen waaj ku nekk dem yoonam diggante bi dara xaw bi ci góor ak jigéen tey na waar de ah moo tax diine dafa sew diine du xel ala kulli haal même bu fekkente ne dara génnul ci yow it yëgal ne loolu dafa xaraam jar na sax nga génn ci saal bi bañ faa toog waaw loolu jar na nga bañ faa toog mu ne wa kayfiyatul xuslu naka la ñuy sangoo set léeg-léeg ndeysaan nga gis nit ñi ci seeni sàggan rawatina ci jigéen ñi saa yi sax day dal góor ñi ay ci jigéen ñi la ëpp ay jigéen joo xam ne bis bi ñu koy sang jàngal sangu set mooy bis bi jëkkëram faatoo fekk sëy naa sax jëkkër ji juróom-ñaar fukki at juróom-ñett fukki at jëkkër ji faat ñu ñëw di ko jàngal ndeysaan nu muy jàppee ak nu muy sangoo démb rek gis naa ko.
gis nga ko dem démb rek démb.
kii nee na gis na ko dem ku jëkkëram gaa ñu koy jàngal sangu set.
waaw ku jëkkëram gu jë gaañu ñu lay jàngal ñu ne ko da nga war a sangu ji mu ne nan la ñuy sangoo gars yi dugg ak moom ci biir douche bi di ko jàngal nu ñuy sangoo mu soon naa gis ci koñ bi ma dëkk benn jigéen bu demoon màkk ba ñëw ndeysaan ñu naan ko ajaa bugguma jaar nag ci li ci des ajaa rek mu ne ma naa ñëw di ko jàngal daal diineem saa yi mu ngoon gu nekk ma ñëw di ko jàngal ba benn bis mu ne ma oustaz daal bëgg naa nga jàngal ma ñaar ma ne ko ban ak ban mu ne ma jàpp ak janaaba nuñ koy sangoo te dem na màkk ma ne ko munoo jàpp mu ne ma munuma jàpp ma ne ko munoo sangu mu ne ma munumaa sangu ma ne ko man dégg naa ñu ne yow dem nga maak mu ne ah dem naa kay lu sax du ma dem ah nit ñi di dem du ma dem ko cee yàlla loolu nag xam nga lu garaaw la wallaay dañ cee yëpp jigéen ñi rek ay góor ñi it waxuma ñu am na ñu mënul jàpp de waaye am na ñu mënul sangu ndax xam nga li tax Sénégal mbir yi catastrophe mooy du ñu jàng du ñu laaj te dañoo am kees waaw du ñu jàng du ñu laajte da ngay gis koo xam ne mu ngi dem jàkk 24 heures sur 24 du génn jàkk ci waaye xamul dara ci diine yu ndaw ndawaan moo lay wan ne kii xamul yu ngan di waaw ndaw ndawaan léeg-léeg nga déggee ci kenn mu ne ah waaw nanga ma nanga ma damay gis nit ñi di ko def nga ne ko ah ah nga xoolaat ko mu ne la ah ci la bokk ne ko ci la bokk kay ah man de yàlla man daaw ma ko def de benn jigéen mës na ma wax ne sama jëkkër xamul gee ñaata ràkk la ma ne ko lu tax mu ne ma ndax man damaa julli ñeent mu ne ma ñaar la di ko weranteeg man ba ba tëdd jot ba bi ñuy tëdd sax ñoom ñaar dañoo xuloo mu tëdd xool ne ma tëdd xool ne ba bër set ndax nee na man dama ko yem daan ko gee ñeenti ràkk la te ñaar la mu insisté foog ma ñëw foog ma ñëw jëkkër ji toog ñu leeral loolu mu insisté mu ne ma sama waa ji xamul gee ñaata rakkal fan lañ jëm
est-ce que jaawale ko ak sa sa jaawale ko laay ñoo ko tey diine ñoru leen sangu mu ne alkayfiya mu ne an yaxsila kaffayhi qailan bismillah li njëkk mooy bu amee janaaba xam ngeen janaaba li koy waral naa leen ko léegi ndox la buy génn ci yow tudd mani wuteeg wadi ak wasi ak bawul sa palaasu awra yow ku góor wala ku jigéen sa place bi nekk ci kanam te nga fay sëyee ñeenti ndox ñoo fay génn benn baa ngi tudd al bawul benn baa ngi tudd mani benn baa ngi tudd wadi benn baa ngi tudd wasi ñeenti ndox yooyu benn bi mooy waral sangu mooy mani yeneen ñett yépp raxas ak jàpp lay laaj bawl wasi ak wadi ñett yooyu ma wax raxas ak jàpp lay laaj amma mani fop sangu am ndox la mu weex mu tal muy génn ci jamonoy bànneex wala ngay sëy wala nga toog di xalaat mbirum sëy wala nga toog di ko imaginer wala ngay fowe sa awra wala sa kanam ba mu génn ci yow su boobaa li war ci yow mooy nga sangu ci ndox moomu nag am na boroom xam-xam yi ne du sobe am na ñu ne sobe la lu wute def ci am ala kulli haal saa yu génnee ci yow moom foog nga sangu sangu rek moo lay arrangé jàpp du la arrangé sooy sangu nag li jiitu mooy nga wax bismillah nga yéene bul ko wax ci sa gémmiñ nag ne yaa ngi dindi sobe bu mag loolu la ñuy wax toj bu mag mooy sangu bi toj bu ndaw mooy jàpp toj bu mag mooy mooy sangu nga yéene yaa ngi dindi sobe bu mag après bi nga raxasee sa loxo yi ba pare li ngay def summa yastanji mooy nga raxas sa jumbax wàcc sa raxas sa awra raxas sa pooj yi ba ci sa óom yi ci kanam ak ci ginnaaw raxas ko ba mu set fépp foo xam ne xam nga ne sobe bi takk na la fa dangay raxas foofu kon li nga njëkk a def mooy li nga njëkk a def mooy li nga njëkk a def mooy yéene après nga raxas sa loxo yi ba mu set sa ténk yi ba mu set après nga raxas awra bi càmbale ci jumbax bi ah wàcc ba ci óom yi pooj yi yóbbaale ci kanam ak ci ginnaaw ba mu set mu ngoog nga raxas sa awra bi ak li ko wër côté yooyu yëpp ba mu set su ma yeta wadda après nga jàpp benn benn raxas loxo bi benn boole gémmiñ gi ak bakkan bi gàllax ndiku benn ah chaque jour nag ci njàpp ak gàllax ndiku ak sarax ndiku ak fiiru ñoom ñooy ànd ñun fii ci Sénégal ku ñuy jàpp dañuy raxas gémmiñ ñett dugal ndox ñett génne ko ñett ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam gémmiñ ak bakkan ak génne ñooy ànd ñetti yoon soo nee benn yoon di dugal ndox mi dafa war a diviser wu gémmiñ gi ak bakkan yi dugg génn bi daal di àndaat muy benn nga defaat muy deux nga génne nga defaat muy trois nga génne suma soo après li ci tegu mooy boo raxasee boo defee loolu ba pare nga sëlmu waaw soo sëlmoo après nga raxas loxo yi tàmbalee ci loxo ndeyjoor bi ba ci conc yi raxas ko après nga dem loxo góos après nga tàmbalee ci bopp bi masaa ko masaa nopp yi bu nekk benn yoon summa yaxsilu rijlayhi ilal kaabayni après nga raxas tànk yi ba ci dojoor yi nga tàmbale nag ci kaw bopp bi yaxmis kaffayhi fil ma summa yuxallilu asaabi ash-sha'ri rasi su fekkee ne pot la nga tànk ndox mu bari tàmbalee ci bopp bi su fekkee kawar gi dafa bari nga fexe ba raxas ko ba mu set su fekkee da nga am sikkim nga xàlli sikkim bi ba ndox mi yëpp daal ciy dugg wàcc diviser sa bopp en deux tàmbale ci ndeyjoor bi raxas ko ba ci suuf ci kanam ak ci ginnaaw après nga ñëw ci gauche càmmoñ bi nga raxas ko moom tamit ci kaw ba ci suuf ci kanam ak ci ginnaaw ba mu mat su paree njàpp mi daan nay mat sangu bi daan nay mat njàpp mi daan nay mat ci lislaam noonu la ñuy sangoo set bul fàtte poqotaan yi bul fàtte bu fekkee sa yaram bi dafa am ay ras-ras yu lemu comme yenn saa yi nga gis jiw yu def nii ah am ay mel ne tërgën su boobaa yooyu yëpp ndox mi daf cee war a dugg biir nopp yi bul ko fàtte biteeg biti ndox mi def cee war a dugg ci ginnaaw surtout comme loxo bi di jot boo mënee am loo tooyalee ginnaaw gi lu mel ne serviette wala njàmpe nga xam ne ginnaaw gi di nga ko tooyal ba ginnaaw gi tooy ngay xam ne ci la bokk sa yaram bi yëpp dafa war a tooy booy sangu janaaba pour nga mën a set pour sangu bi mën a set ñeenteel
comme si si sangu janaar bi soo jàppee benn benn ñu ne sa loxo waratul laal sa awra est-ce que sa diggante jumur ba ci pour yi la wala awra est-ce que si kese la ñu wax waaw foofu souvent dañuy wax ne boo jàppee ba pare sa loxo bu mu demaat sa kanam bu demaatee sa kanam sa njàpp day toj waaye comme xam nga wuute yenn saa yi day am ci borom xam-xam ñenn ñi ne sa sa awra benn cër la ci yow benn cër la ci yow ñii ne bu laalee sa njàpp sa njàpp yàqu na ñii ne sa njàpp yàquwul waaye li may moytandiku loo rek mooy ñi ëpp dañu ne lu xonq li ci sa loxo lu xonq li fii ci biir lu xonq li bu laa waaw tënk bi bu laalee awra bi rek moo xam góor la moo xam jigéen bu dee góor la moom bu ko laalee rek rapidement yàqu na bu dee jigéen nag dañu ne fokk mu dugal baaraam baaraamam ci awraam su ko ci dugalee rek njàppam yàqu na kon loolu tamit ñu moytandiku ñeenteel mooy isa lam yajid ma ak turaab su fekkee amoo ndox yeewu nga am janaaba amoo ndox nooy def
muy tiim ngay tiim da ngay wut suuf wala nga wut xeer wala nga wut lu taxaw taxawaay boobu pour nga mën a laab waaye doo fi toog naan ndox amul foog ma xaar ndox déedéet da ngay tiim julli ba saa yu ndox amee nga sangu su fekkente ne waxtu wi jàllul su fekkee waxtu wi jàllul waxtu bi jàll kese.
da ngay baamtuwaat julli gi nga julli woon su fekkee waxtu wi passé na
baax na julli gi baax na waaw ah tiim bi waaw ngay laaj waaw xeer ci yi ñuy tiim la bokk wasaayilu taxaara ñaata la maa ngi wasaayilu taxaara pusale wasaayilu taxaara kam wasaayilu taxaara arbaa ah alxajar atturaab der dañ ko cay génne ba am na ñu def der ak dabu mooy der bu ñu wulli waaye boobu dafa amul hadis moo tax ñu génne ñu ne am man naar bu dee safara nag moom ah kenn du ci tiim doo fekk fourneau boyal nga da ngay tiim doo doo ko defati kon xeer la ñuy tiimee suuf ak ñenn ñu ne der waaye der hadis da ko hadis da cee tuddut moo tax kon daal li wóor mooy suuf mën naa am xeer am nga bàyyi suuf jël xeer wala nga jël xeer bàyyi suuf nees mën nañ ci tiim ak coquillage question yi question yi dañu bàyyi bu mu pare bu mu pare kii ba pare après incha allah.
waaw ñu bàyyi question yi bu ñu paree ñu doog a jël question insha allah amul problème waaw kon ñu ne boo amul ndox mën ngaa jël suuf nga tiime ko tiim nag aussi ci Sénégal dafa am problème tuuti léeg-léeg ñu ne la wala ngay tiim da ngay jóge sa kër ñëw ci jàkka ji daal di toog ba ñu ne bismillah imaam bi taxaw nga bàyyi waa ji mu li xaam allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga doog a jël xeer bi naan nii ñu ne boo tiimee sa kër ñëw jàkka ji amoo tiim déedéet mën ngaa tiimee sa kër sax kenn du xam ne da ngaa tiim nga dem jàkka ji beneen bi ñu ne tiim chaque jour booy julli da ngaa war a tiim déedéet mën ngaa tiime tisbaar jullee ko tàkkusaan mën ngaa jullee tàkkusaan jullee ko timis mën ngaa tiime timis jullee ko fekk jàpp tiim tiim bi yàquwul li ndax li yàq njàpp mooy yàq tiim ba mu des fenn li yàq tiim mooy yàq njàpp li yàq njàpp mooy yàq tiim ba mu des fenn ku xam fenn foofu benn dong la mooy différence ban la déedéet su ndox amee su ndox amee tiim yàqu na déggoo boykat yi arab yi dañ naan la ñu nekk ci àll bi dañ naan mbaam ŋaax tiim yëpp yàqu mbaam yàqu ti mbaam ŋaax tiim yàqu mbaam yi dañoo rooti dem nañ depuis suba nga tisbaar jot nga kàbbar rek dégg mbaam yi ne ngee ngee waxal asalaamaaleykum ndox ñëw na sa tiim yàqu na da ngay dem ti jàppi su ndox amee rek tiim yàqu na lan moo waral fa ilam tajidu maan moo ko waral isa wujidal ma xat batala tayammum suñu amul ndox dañuy tiim bu ndox amee tiim yàqu na kon mu ngoog tiim li ñu koy defee mooy tekki jaaro yi tekki montre yi teg loxo yi nii fatt baaraam yi diggante yi ci suuf si xool ah dafa am ay xeer yu sew wala ay ay yu ci takk bant nga ni ko nii mu wàcc nga diw sa kanam tàmbalee saxukaayu kawar gi ba ci yaatuwaayu nopp yi suufu sikkim bi daal di fermer ah boole kook sikkim bi def kanam gi tagaat xool dafa am luy gaañe nga dindi ne ko nii amul nga teg def nii daan nay pare loolu mooy tiim ci sunna yonent bi noonu la ñuy tiimee am na hadis bu ñëw ci Abdullah ibn Omar ñoom ñoo ñëw ba fii hadis boobu dañu ne mawquuf la ci Abdullah ibn Omar mooy ñëw ba ci tinq yi ñëw ba ci conc yi biir ak biti ah def nii waaye lii rek doy na loolu la sunna yonent bi jàngale def nii dóor ci sa kanam def nii dóor ci say loxo wala def nii tam def say loxo def nii def ci sa kanam wér na loolu mooy tiim li koy waral wax nañ leen ko mbokk yi juróomeel mooy afullahi wa gufraanihi li adami muaxaza mina man sallu wahum sukaara yàlla subhanahu wa taala ci njëlbeenu lislaam yàlla jéggal na yàlla baal na ñi nga xam ne dañoo julli woon fekk ci jamono yooyu ñoo ngi màndi doon naan sàngara di julli ginnaaw loolu nag kenn ku fi jullee di màndi amoo julli ginnaaw loolu sàngara sobe la képp ku jàpp ba pare daal di naan sa njàpp yàqu na képp ku màndi fase sa jabar fase ba tàbbi na ndax yaa ko tey lépp luy yàq xel nag dañ la kaa tere ndax saa yow ko utiliser loo fa defati rek yow yaa ko def yaa ko tey ndax dañ laa tere lépp luy màndilaate kullu muskirin xamr wa kullu xamrin xaraam lépp luy màndiloo sàngara sàngara xaraam na kullu muskirin lépp luy màndiloo nag lu mu mën a doon ci yow même bu fekkoon ne màndi tax ko woon jóg nga xam ne yow boo ko utilisé da ngay màndi dañ laa tere nga jege ndax loolu sàngara la ci yow bis boo ko utilisé nga màndi nga def ci dégâts dégâts bi yow yow yaa koy yem kon mbokk yi juróomi mbir yooyu mooy yi nga xam ne tey moom lañu sunu aaya bi doon jàngal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهك بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفو عفوا غفورا من يا أيها الذين آمنوا loolu ñun ñëpp xam nañ yaa ayyuha allazina amanu lu muy tekki ndax yàgg buñ ko yàgg dégg boroom xam-xam yi nee nañ Abdullah ibn Mas'ud nee na boo gisee yaa ayyuha allazina amanu mu ne déglu oto bu doon daw ba ci yàgg feu bi daal di tàkk rouge nu muy def yaa ayyuha allazina amanu mooy feu rouge ci ab jullit dafa lay wax defal wala mu ne la bàyyi yaa ngi dox ba jàng rek nga dégg yaa yolla si naa mënu ñu ne taxawal dañ lay wax defal wala ñu ne la bàyyil mu ne laa sakk an haasi l aaya sababat sababan nazalat bi muqtadaahu wa huwa an abdurahman ibnu auf radi allahu anhu xasaba riwayati tirmisi nee na xam ngeen aaya bi liñ ci wax mooy ay mbir moo tax mu wàcc ku mel ni abdurahman ibnu awf ci yenn riwaay yi nga xam ne tirmisi yi solo na ko ñu ne dafa invité woon gaa yi feet ñu dem fa akalu wa sharibu ñu daal di lekk daal di naan ba ne tat daal di màndi waaw julli daal di jot ñu daal di jiital kenn ci saxaaba yi am na sax yenn saa yi ñu tudd tourné diw la woon mu daal di julli mu daal di jàng qul yaa alkaafiruun mu ne qul yaa ayyuha alkaafiruun abudu ma taabuduun wa antum taabuduuna ma abudu wa ana a- abudu ma mu dem dindi laa yépp laa yi la dindi laa abudu ma taabudun mu ne abudu ma taabudun bi mu sëlmalee rek Omar daan ne mbir mii lii day lii day war yàlla war nañ cee wax dara de lii alxuraan daal di wàcc ñu ne leen laa taqrabu solaata wa antum sukaara bu leen jegeeti bu heure julli jotee bu kenn naanati am ñoo xam ne ñoom bi ñu leen waxee ne bu heure julli jotatee bu kenn mandeeti keroog lañ pare ci sàngar lii bu baaxoon yàlla duñ ko tere am ñu bàyyi ñu daal di demaat jamono problème am sàngara indi ay catastrophe gars yi ñu ne wa yasalunaka anil xam alquran daal di wàcc qul fihima ismun kabir wa manafiu linnas ñu ne ismun kabir mu ngi ci am ñu bàyyi mu des genn wàll gi continuer ñu dem nag ba bis alquran daal di wàccaat ne innamal xamru wal maysir wal ansaab wal azlaam rijisun min amali shaytaan fajtanibuhu laallakum tuflihun omar ne allahumma antahina minu yàlla ñun pare nañ ci keroog mbeddi medina saxaaba yi nee nañ dañoo tuur sàngara si dami naaj bi tàngee tàmpe ci tàngaay bi ci ci ci ci sàngara si ñu bëri dañoo màndi ndax mbedd yi nuñ ko tuuree ba mbedd yi taa dañoo toj dimsaan yi këpp gutt yi dagg lépp këpp barigo yi daan na bàyyi nañ sàngara keroog la waa Madina araamal sàngara ba tey ne allahumma tey naa min sàngara baaxu yonent bi alayhi salaatu salaam ne mudminul xamr ka aabidu wasan naankatu sàngara mu ngi mel ne kuy jaamu xërëm ndeysaan man Omar am na lu bare bari ci alxuraan ndeysaan day wax ak yàlla day day wax yàlla lii rek mbir mi daal di ñëw bokk nañ sàngara ma allahuma bayin lana fi lxamri bayaanan saafiyan ay waay yow yàlla sàngara sii di toj dëkk bi yàlla na ngi ci leeralal waaye mbir mu leer mu wér rek alxuraan daal di wàcc bombarde sàngara daal di koy araama yàlla ne yaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm ngalawaay laa taqrabu bu leen jege assalaata julli ci jamono boo xam ne wa antum yéen sukaara dangeen a màndi waaw sàngara baaxul lépp luy mëdd xel lépp luy muur xel ci lislaam loolu sàngara sukaara jam us sakraan wa huwa man sharaba muskiran fa satara aqla wa gattaahu sàngara mooy lépp loo xam ne danga koo naan mu màndi loola mu muur sa xel daal di koy dindi dindi xel amatoo xel lépp loo xam ne ci lislaam soo ko defee tàggoog sa xel lislaam tereel na la loolu ndax nit kat mooy xel laa diinu li man laa axla la ku amatul xel amatoo diine déggoo yonent bi ne ñetti nit yàlla yëkk na ci ñoom seen xalima kenn du leen bindal bàkkaar ñetti nit rufi al qalam an salaas kana kan la muy nelaw an naaimu hatta yastayqis kuy nelaw ba mu yeewu al majnun hatta yafiq ku dof ba mu wér ku dof ba mu wér feek jamono bi nga dofee kenn bindalu la bàkkaar léeg-léeg nga tox ci mbedd ba caa nga gis dof bu toog ci ñamu mbaam ceeb boobu sotti nañ ko fa weer ba ay dara ay mbir di ci yëngatu nga gis ku toog di ci lekk ndeysaan di dank dank yi ngandax di sax di lekk yow da nga koy gis rek daw ndax sa yaram day daw sa xel commencé tey yow moom xel mi du tey lu tax amul xel doo ko ñu ne dof xel bi du tey parce que amul xel moo tax xel bi du tey xel moo fa nekkatu moo tax ci lislaam lépp luy tàggali lu lay tàggaleeg sa xel lislaam tere la ko yàlla ne leen bu leen jegeeti julli ci jamono boo xam ne dangeen a màndi xataa taalamu ba ngeen xam maa taquluuna li ngeen di wax gis ngeen borom xam-xam yi nee nañ jullit warul def dara lu dul mu xam li muy wax lan la xataa taalamu ba ngeen xam maa taquluuna li ngeen di wax boo jullee pare ñu ne la sëlmal nga nga ni naam ñu ne li nga doon julli lan mooy farata nga ne bien que man de dama gis gaa yi dit kii rek taxaw ma taxaw rukoo ma rukoo sujjóot ma sujjóot sëlmal ma sëlmal ñu ne loolu rek la nga ne waaw sa julli baaw xataa taalamu ba ngeen xam maa taquluuna li ngeen di wax gis ngeen nit lépp lu muy def daf ko war a xam faalam moo jiitu faalam annahu laa ilaha illa allah balaa ngay def dara faalam iqra moo njëkk a wàcc yàlla ba ne wala mu ne yonent bi julli lu mu ko wax iqra moo tax yow tamit balaa ngay def dara xamal te mbokk yi lay dafa jeex kenn ci ñun mënul dem ci yàlla ëllëg yàlla ne lu tax yow jàng woon nga naan ko waa secrétaire dama bëri woon dama occupé woon quoi moom moon jot xam nga rek temps yooyu fekk ma takk soxna commencé di liggéey di daw course de passe dama luwe woon courant ndox loolu kenn ku mënu ko lay kanam yàlla yonent bi ñaataat la am bi ko yàlla di jàngloo
40 40 ans yow ñaataat nga am te yonent bi jamono yooyu takk na soxna waaye yàlla ne ko demal nga jàngi iqra jàngil wax ko qaatil xeexal wax ko saytir wax ko iqtanim wa innama qaala iqra iqra filu amrin ah ci maadi la départ ñëw mu daal di ñëw amr iqra dafay soppeeku dama nga jàngi mooy situation boo nekk jàngil nga war a jàng da ngay gis borom xam-xam yi ba léegi ñu ngi jàng ñun fii gars yi ku mokkal ñetti hadis rek wér téere yi ndeysaan allahu akbar da ngay gis àddina bi ñu am doctorat dem di jàngi doctorat di jàngi dem di jàngi ñun amaguñ dara wér suñuy àlluwe léeg-léeg benn mbokk mooma ma ne ko waaw rappelé ma quoi dama fi ma nekk fi may jàng laa nekkee peut-être oustaz yow dama la wax nga ne ma yaa ngi jàng ma ne waaw yaa da ngay jàng da ngeen dof nga da ngay jàng suñu jàngul looy def ku jàngul looy def looy def looy def boo jàngiwul nga dem si làmb
xanaa jànguleen aaya bi yàlla mu ne waqul waqul rabbi zidni ilma jamono boo xëyee da nga war a jàng saa yoo xëyee da nga war a yokk te jàng léegi yomb na boo demee internet jàng boo ubbee rajo jàng boo demee ci koñ yi jàng foo nekk jàng bokk na ci li ñu tardeel mooy ñàkk jàng kon nanu jàng sunu diine bu leen julli bu leen jegeeti julli wa antum yéen sukaaraa fekk yéen a ngi màndi seen xel a ngi muuru hatta taalamu ba ngeen xam maa taquluuna li ngeen di wax li zawaali sukri ba màndite bi deñ ankum ci yéen hmm? li ngeen naanoon ba mu deñ ci yéen ba ngeen xam li ngeen di wax bu ngeen taxawee ci seen kanam borom ngeen xam li ngeen di wax du ngeen jaxase su boobaa nag ngeen julli wa hada kaana qablu tahrimi alxamri wa saairi almuskirat lii nag aaya bi dafa wàcc avant ñuy araamal sàngara ak lépp lu mel ni moom aaya bi dafay njëkk dafa wàcc balaa gis ngeen moo tax diine lislaam diine la joo xam ne diine ndànk la ndànk ndànk ndànk diine ndànk la moo tax képp ku ñëw foo mën a nekk nga ñëw rek daan ne lii la ñuy def buñ ko fi deful kenn du ko fi def te yow xamoo diine wala sàngara islam dafa ñëw fekk gaa yi di naan ñaata at ñaata at gaa yi di naan sàngara xoolal depuis Isa ba yonent yàlla Muhammad diir boobu yëpp gaa yi naan yow nga ñëw rek daan ne bàyyi leen ko kenn du la faale la lislaam moo lay wan ne ci yàlla la bàyyeekoo xataa yàlla def mu def ndànk aaya bi ñëw ne bu leen jegeeti sàngara wa yasalunaka anil xamr gaa yi lay laaj sàngara lu ci yàlla wax mu ne qul fiima ismun kabir waaye wa manaafiun kasir ah feew li naas sàngara day bàkkaar a ngi ci waaye am na luy jëriñ nit ñi am na lu ciy jëriñ nit waaye wa ismuhuma akbar akbar min nafihima nafihima waaye bàkkaar bi moo ëpp gis nga bi yàlla ne bàkkaar bi ëpp am ñu xalaat lu bàkkaar bi ëpp daal njëriñ daal di bàyyi xoolal borom xel yi ñoom chaque jour bu dara di am borom xel yi ñoom bu ñu déggee rek waaw daal di rey daal di bàyyi deuxième aaya bi mooy bii laa taqrabu salaat wa antum sukaara bu leen jegeeti julli ci jamono bu ngeen màndee ñu bëri bàyyi xoolal ndànk-ndànk la leen yàlla def pourtant yàlla suñu borom subhanahu wa taala xamoon na ne fi mu jëm ak ñoom mooy araamal leen ko parce que baaxul waaye aaya bi wàccu rek ne leen bàyyi leen ko moo tax ci ci ku yar ay nit ku dem ci dëkk gis nga même yonent bi muy yónni Muaz ci Yaman da ko ne boo demee tàmbalil ci nàngam tàmbalil nàngam tàmbalil nàngam tàmbalil nàngam tàmbalil nàngam digle leen lii bu ñu diglee lii bu ñu ko defee nga wax leen nañ def lii bu ñu waxee nga def loolu foog foog tamit loolu yoon yooyu ñu jaar ci duñ ñëw rek yor suñuy jaasi comme tey ni mu amee ci monde bi ñëw rek sama waay takk say bomb ñëw ci benn jàkk daan def exploser wala ñëw ci ay chrétien exploser ko loolu kenn du ko def loolu du benn diine ku gis ne loolu diine la tamit yow yaa ko gis waaye islam waxul loolu yàlla lim ñu jàngal ci alxuraan mooy ñuy def ndànk nit ñi ndeysaan gars yi sax demoon nañ jihaad daal di rey benn waay ne waa ji dafa tiit dafa ragal daf ñoo gis rek mu ne laa ilaha illallah waaye du julit xam nga yonente bi lu mu leen wax ndax yéen a dugg ci xolam ba pare alxuraan daal di wàcc ne wa kazalika kuntum min qablu fa manna allah yéen ñi ñëpp ay rapport ngeen woon da ngeen doon buub seen tubay sam waaye di jëngal di kiris karas yàllaa leen baaxe tey ngeen nekk ay sunit kon def leen ndànk kenn ci yéen judduwul ci sunna wala ñu bëri ñu ci ñu bëri ci ñun fi baal nañ ba sonn déglu nañ am na paa yoo xam ne fii fecc nañ ma- mara nga xaw ma pacanga waaw kon nag mu ngoog yéen ñëpp noonu ngeen meloon kon nag tey bu leen yàlla indee ci li def leen ndànk wa kazalika kuntum min qablu fa manna allahu alaykum ndeysaan noonu ngeen meloon ni gaa yi mel te yàlla daal leen di génne li nga gis benn waaye mu ne la su man zóoru nawetaan laa woon cum kenn ne la man musicien laa woon kenn ne la man gis nga oustaz wallahi alazim rappeur laa woon waaw kon nag il faut ñu def ndànk ba pare ñëwante bu yónni woon sahaaba yi ñu dem dana innama bu istum mu yassirin dama leen yónni pour ngeen yombal daf leen ndànk yassiru wala tuassiru yolomal leen mais bu leen diisal bu leen jafeel ah wa bashiru wala tunaffiru bégle leen mais bu leen dàq da ngeen di bégal nit ñi mais bu leen leen dàq kon loolu mooy diine lislaam gis nga lii aaya la yàlla dafa ñëw rek ne leen bu ngeen mandeetee bu julli jotee bu kenn naana ci waaw jamono boobu hatta taalamu ba ngeen xam maa taquluun mu ne wala junuban wana bu leen jege di julli aussi bu ngeen amee janaaba gis nga wala junuban al junub man bihi janaaba walil janaaba sababaan jima aw ixtilaam janaaba nag li koy waral wax naa leen ko ñaari mbir kese la mooy lan sëy wala gént sëy wala gént sëy dangaa sëy ak jigéen wala nga tëdd gé yeewu gis ne dangaa sëy gént nga ci bi nga tëddee di nelaw gént nga sëy jigéen mani bi daal di wàcc ci yow ay taqal sa yaram sa yére ak place bi nga tëdd kon pour nga julli foog nga daal di laab kon ñaari mbir a ngi nii yàlla tere na kuy julli mu def ko mooy lan kuy julli mu am ko mooy lan janaaba ak sàngara mu mooy sa xel deñ kon ku am janaaba du julli ku am ku màndi du julli mu ne illa abiri sabil marina bil masjid lu dul ngeen romb ci jàkka ji dama am janaaba de waaye damay romb jàkka ji su boobaa mun naa mun naa traversé jàkka ji duggi bunt bi génne bunt bale daal dem waaye duma fi toog yonent bi alayhi salaatu salaam daan na yónni Aïcha Aïcha am mbërëg mooy loolu ñuy wax xayd yonent bi ne ko Aïcha dugal ci jàkka ji jox ma sama jaaro mu ne yonent bi dama gis mbaax de mu ne ko ndax mbaax mi ci sobe bi ci sa loxo la nekk ne ko ndax sa sobe loxo bi moom moo tax sobe mu ne déedéet ne dama nga jox ma sama jaaro bi te jaaro bi bindoon nañ ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu dem dugg daal di koy jox jaaro bi daal di génnaat waaye kon luñ bañ mooy ko am janaaba di toog toog ci jàkk wala ku gis baax muy toog ci jàkk mu ne illa abiri sabil lu dul ngeen di traversé jàkka ji maarina bil masjid mururan bi duni julusi fii romb boo xam ne doo ci toog bu fekkente ne da ngay toog ci jàkka na fekk nga laab ba pare balaa ngay toog na fekk nga daal di julli ñaari rakk bul mel ne bul mel ne booy yi quoi ñëw rek daal di toog balaa ngay toog julli ñaari rakk nga nuyu jàkka ji xanaa déggu leen dars bi balaa ngay toog ci jàkka da ngay julli ñaari rakk nuyu jàkka ji ah déet waxuma ko yonent bee ko wax waxuma ko de yonent bee ko wax yonent bi ne man daxala fil masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatayni tahiyatan fil masjid loolu nag jamono yëpp lañ koy def de dafa am ay nawaafila yu tudd nawaafilul asbaab ndeysaan buñ demee ren aji màkk am benn paa bu ma yóbboon muy ziyaare ji rawda rasul sallallahu alayhi wa sallam ma ñëw ndeysaan ne ko fii mooy rawda rasul ñëpp jóg julli ñaar raaka paa bi toog ñëpp jóg julli ñaar raaka moom dong mu toog ma ne ko waaw pap doo jóg julli mu ne ma déedéet ma ne ko lu tax mu ne ma heure bi sama sëriñ suñu sëriñ day tere ku julli ma ne ko mais da ngay def da ngay def ñaari raak nga nuyu jàkk ji nga nuyu place bi bi jàkk ji la mu ne ma déedéet sama sëriñ moo ma ko tere ma ne ko sëriñ bi tëdd fii ak sa sëriñ ku raw mu noppi bañ maa tontu ma ne ko xoolal seytaane sax mu ngi lay jàpp pour doo tontu doo wax sëriñ bii moo raw sa sëriñ ma laajaat ko laaj bi ne ko sa sëriñ ak sëriñ bi tëdd fii ku raw mu ne patt noppi ma ne allahu akbar seytaane mi ngi lay gañe def ma job ko rek sa sëriñ ak sëriñ bi ko mu ne xam nga ne sëriñ bi moo ko raw kay xam nga ne sëriñ adandi kay ceerno o dadima adandi kay léegi doo dadima an ne mu ne xam nga ne kii kay moo ko raw ma ne ko waaw ma ne ko yonent bi nee na ku dugg ci jàkk bu mu toog lu dul na julli nuyu jàkka ji ñaari raak ni ma ko doon waxee moom comme tukulóor laa ko doon làkk kàddu gi dafa dëgër ndeysaan mu toog rek bi ma paree bi ma noppee rek sama xol bi jeex na ma noppi am na benn paa ndeysaan ndeke mu ngi dend ak ñun sénégalais la olof la mu ne ma asalaamaaleykum mu ne ma li nga ko doon wax ci pulaar wax ma ko ci olof ma leeralal paa bi rek paa bi daal di jóg moom de daal di ne allahu akbar ma ne ko xoolal même kii indiwuma ko te wax naa ko mu def mu def yow maa la indi ma wax la nga bañ rek mu daal di teg kurus bi daal di jóg daal di ne allahu akbar dama ne sénégalais yi ni ñu mel di nga dem ba Medina Medinatul Munawwar bàmmeelu yonent bi mu ngi nii fi yonent bi doon taxaw mi ngi nii nga naan waa Sénégal nee nañu Sénégal nee nañu al ko rek ñooñu li ñu nekk du dëgg ñun ñoo nekk ci dëgg lan la xel nangu ñun ñoo nekk ci dëgg wala ñooñu waxuma la fenn de dama ne yonent bi fi ñu ko denc mi ngi nii yaa ngi gis bunt bi mi ngi nii taxaw fi yonent bi daan taxaw di jiite mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii waxuma sax ay mètre nga xool fii ñu ne la fii mooy masjidu rasul ñaari minute imam bi romb la ñëw taxaw imam boobu ñu taxawal foofu waa dëkk bi yëpp ki ñu wóolu ko ba ni kii mooy jiite bi imam boobu day fen waxul dëgg xamul xam-xam dafa réer dof la waa Sénégal ñoo ko raw waaye nag waa Sénégal moom comme nee nañu fédère bu jiite na màkk c'est catastrophe say kumar yehi makk o tawi fédère bi na ardiɓe ɓoyɓe on juulani o ko fédère xoolal loolu ni mu grave inna lillahi wa inna non sénégal dag mo nee nañ El Hadji Omar Foutiyou Tall dafa jóge sénégal dem màkk ñëw fekk fédère bi di leen jiite xam ngeen fédère ah waaw ñu fekk feder bi di leen jiite mu ne leen yéen waa Màkka ñu ne ah mu ne julliwu leen ñeen fukki at a ngi nii julli woon ñu ne ko lu tax mu ne feder bi moo leen doon jiite ñu ne ko anamu mu ne mu ngi nii xool leen tubéy bi gars yi ubbi tubéy bi fekk jonguwul ñu ne allahu akbar Cheikh Oumar xoolal li ni mu grave ñu koy wax ñëpp naan est-ce que est-ce que Cheikh noonu ñu koy waxee ci Cheikh Oumar lañ koy waxee ci Alaaji Malick noonu lañ koy waxee ci keneen sëriñ yi noonu lañ koy waxee ci keneen ay ay jayaate dara amu ci dara amu ci dara amu ci fan nga mës a gisee waa Màkka waa Màkka dañoo dox ba Faidherbe du jógee Sénégal dem Faidherbe eh waaye Faidherbe eh loolu mu nekke xanaa waa Sénégal sax waa Ndar sax Ndar sax ba Faidherbe bu nekkoon boo leen nee ne Faidherbe bi jiite leen waa Ndar lu ñu lay wax ñu xanaa dafa dof Faidherbe dinañu jiite ñu Faidherbe waxuma nag nag Màkka nag waa Sénégal ñooy waa Màkka moo tax problème boobu moo leen dal lu waa Màkka def rek ñu ne ñun duñu waa Màkka ñun bëgguñu da ngay gis billahi bisu arafaat wallahi alazim bisu arafaat benn waaye nekk fa bisu arafaat di ñu xas ma bañ histoire bi ma daal di jël mbokk yëpp ne leen dem leen leen toog fi parce que bu ngeen fi toogee ñun dañoo aj suñu aj day yàqu waa ji bàyyi bañ dem mu naan ñun Arabie Saoudite moo ñuy fay xaalis moo tax ñuy julli di xam nii moo tax ñu am ay sikkim moo tax ñu gàttal suñu tube yi mu ne gis nga ñii bu leen leen déglu Arabie Saoudite moo leen di fay Arabie Saoudite yu fay alors dafa wax dof yooyu ñii waa wax dañu ñu ne waa màkk mu ne mu ne paa yi mu àndaloon bu leen xool fii dara laa wax bu leen fi jël dara na ngeen mel waaw na ngeen mel na ngeen mel mu ne na ngeen mel nii ngeen meloon ba ngeen ñibbi soo melee noonu da ngay dee de da ngay dee dem safara ku dem ba màkk jëlewoo fa dara fii doo fi indi dara waaye am na ci nit ñu baax ñoo xam ne boo leen waxee dañuy xippi seen bët di xool soo waxee ñu dégg nga leen xool leen nit ñi ni ñu mel xool leen nit ñi ni ñuy def fii mooy jàkka fii mooy jumaay màkk fii mooy jumaay midin xam ngeen ne kaaba gaa ngi nii fi la yonent bi daan wiiru fi la aboubacar nekkoon omar isman ali xam ngeen ne ñii lu nu nekk boobu ba léegi dëgg la nit nit day xool li ma nekk ak ni nit ñi nekk ci dëgg li ñu nekk ndax benn la wala du benn waaw benn paa ndeysaan dafa ñëw rek bëgg a laal kaaba gi di bëgg a laal bàmmeel bi rek ñu dóor ko benn liif fi mu gëstu ñu ne ko xaraam xaraam mu ne lu may def ñu ne ko al qibla qibla udullah qibla allahu akbar wax ngeen dëgg ah naar bi ne ko qibla qibla da ngay ñaan mu ne waa qibla fii bu laal li li bàmmeel la mu ne Sénégal dañuy ñaan bàmmeel mu ne ko xaraam xam nga faa bi mu ñibbisee lu mu wax ñu ne waaw mu ne liifu tawxiid lañ ma dóor dañ ma dóor liif bi cirque bi yëpp wàcc mu ne fa laa jóge am tawxiid allahu akbar mu ne xataa taxtasilu lu dul ngeen sangu wa in kuntum marda bu ngeen feebaree nag aw ala safarin wala ngeen tukki aw jaa ahadun min minkum min alxaayid wala kenn ci yéen dem àll ba wala mu tuur ndox aw laa mastumu nisa wala ngeen jonjant ak jigéen ngeen sëy falam tajidu ma an amu leen ndox fa tayammamu na ngeen tiim gis ngeen tiim fii la jóge kan moo koy def ku feebar aw kuntum marda boo feebaree sa yaram mun talaal ndox da ngay tiim aw ala safar wala nga nekk ci tukki ndox mi nga yor dafa tuuti soo ko jàppee mar dagan na nga denc ndox mi tiim wala amoo ndox nga tiim aw jaa ahadun minkum min alxaayid wala kenn ci yéen dem àll ba amul ndox mu mu laaboo mu daal di jël bant fomb wala xeer wala këyit boo xam ne amul amul xorma bindu turu yàlla ak yu demee noonu mu fompoo su paree mu daal di tiim daal di julli ñetti mbir dañoo tere ku ko fompoo ñetti mbir dañoo tere ku ko fompoo ku dem ci àll bi dañoo tere amoo ndox ñett yi dañ laa tere nga fompoo sëgale sëgale yow nefere yooyu nag yi di dem àll ba wala fas yi ci àll àll bi dañ koy tere ñaareel yax dañoo tere ko fompo ndax yooyu lekk jinne yi la ñetteel lépp lu am xorma lépp lu am xorma lu sacré ah këyitu alquran këyit wala yëre wala wala lépp loo xam ne sacré la dañoo tere nga fompoo ko
kon amoo ndox dangaa dem àll ba wala dangaa tukki wala nga nekk ci yoon aw laa mastumu nisa wala ngeen sëy ak jigéen ñi ap rapport sexuel nga yeewu amoo ndox su boobaa luñ la sant falam tajidu ma an amuleen ndox mu ne fata yammamu tiim leen saidan ci pàkk bu set wicc mooy suuf sulaab tayiban bu teey pàkk bu teey bu set na ngeen ci tiim ngeen daldi julli fata yammamu saidan ay aqsidu turaban tahiran na ngeen ut suuf sulaab ngeen daal ci tiim mooy pàkk saidan mooy pàkk suuf tayiban bu teey bu set famsahu na ngeen masa bi wujuhikum seeni kanam wa aydiyakum ak seen loxo gis ngeen ah famsahu na ngeen masa bi wujuhikum ci seeni kanam wa aydikum ak seen loxo ngeen yëg ne inna allah yàlla kaana mustadeñ afuwan di jéggale xafuuran di yërëmaate gis ngeen li mooy woon ne yomb diine xoolal nga yeew amoo ndox bu ñu la ne woon dama nga wëri ndox xam nga far force nga jàppa dégg nga li ñu yëgal da ngay jàpp yaa ko tey demal nga uti problème ñëw na waaye gis nga diine ak diine yusrun diine dafa yomb kenn du dëgëral diine ji lu dul diine ji noot la dañ leen a utal ndox amoon ndox ñu ne la tiimal dangaa feebar ñu ne la tiimal dangaa tukki ñu ne la tiimal dangaa sëy dangaa dem àll ba ñu ne la fompul wala tiimal dangaa sëy ak sa soxna amoon ndox ñu ne la tiimal nga diine moo tax yàlla ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla ne damaa bëgg ci yéen lu yomb bëgguma ngeen sonn maa jaala aleykum fi diini min haraj diina ji yàlla defu ci luy sonal nit ñi amoo lii ñu ne la defal lii mënoo lii ñu ne la defal lii mënoo julli taxaw ñu ne la taxawal wéeru mënoo taxaw te doo wéeru ñu ne la toogal te doo wéeru wala nga toog wéeru mënoo ko ñu ne la jullil noo mënee amoo ñu ne la bul bul bul joxe gis nga aw ma ndox ñu ne la tiimal dangaa gaañu mën ngaa tiim ñu ne la mën ngaa jàpp ñu ne la jàppal bu fekkee ne góom bi ndox mi bu ko laalee day infecté nga daal di massa ci kaw bànd bi islaam a ngi noonu kon diine bi dafa yomb li nit ñi naan diine ji dafa metti waaye diine ji dafa diis diine ji dafa nangam ñoom rek ñoo jàngul waaye diine ji te boo jàngee rek mu yomb ci yow parce que soo jàngee da ngay xam lii nga war a def lan la doo lor sa bopp am na benn sahaaba bu demoon jihaad ñu toj bopp bi gaa yi sanguloo ko mu daal di infecté mu génn àdduna ñu ñëw ne yonent bi ah waa ji de gaañu na lu tax dafa sangu yonent bi ne kan moo ko sanguloo yéen a ko rey yéen ñu ko sanguloo yéen a ko rey doon na doy ci moom rek mu daal di tiim gis nga diine ji dafa yomb kon kon incha allah doomu ndey loolu moo doon dars tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu